mbay ak gàcceem démb la la koy dundee tey dafay ñëw présenté produit war a day ñëw tooñaat ki nga xam ne yaayam ci boppam ne na ko jox naa la yat saa yu la mbay waxee ko du noonu na yat ba kër gu ma dem fekk fa Ablaye Seytaane kii mooma lakal euh, euh, mbay bii mooy best bi goyave Ablaye Seytaane ah? kii mooma lakal best bi na dafa manqué woon yaa tax mu ñëwaat dégg naa danga dem ba société ba jaarama waaye yàlla na yàlla defal fan bu gudd. man bu dama bëgg booy bi liggéey te yem. gis nga best bi 300 lay jar. waaw 300 lay jar très bien lii lan la. l'écran bi nga xam ne moom lañ maye woon démb moo ñëwaat l'écran. boobu bi un kilo la. bi may bi ñu maye woon démb moo ñëw. démb waaw waaw duñu du du ma may benn damaa dañuy nuyu balance ma ak ñoom bay ma tegal samay produit waaw comme que da nga fi nekk léegi loo am jox ko seen ay bàyyi seen waa kër. Eh, bi mooy estron sec banaana pomme corossol lépp ngi ci biir bi mooy fraise bi mbay góorgóorlu la sa yaay kontaan na ci yow de meew lekk naa baa ngi nii. ma ma man ma man rek ci xale yow rek ci xale yi nekk yow rek ci mag. waaw d' ba tey gis nga sax <laughs> neex <laughs> booy lekk bi familial mbay dégg naa ni blanche ba nga payee samedi Thiès moo fa aye xool ma dégg naa koñ boo romb bàyyi leen pot ñu koy ñit ba tey ba pare rek kaay xamal la pot bi dafa neex boo bënee ba pare mun nga saañ fii def ko condamné man chaque jour kay kër gëy quatre ah, yow non baax nag xam lu ma neex ci yow ah. say xarit da leen di jàppale mbay mbay waaw dégg naa démb ba tey yaa ngi fóot sa yére foo romb ñu leen samay yére bees te benn bees lu dul ma daal oto yaa ngi raxas gisoo mais mbay mbay fi nga génne nooy na of <laughs> ay mbay mbay nag àdduna oh mbay dafa yow mbay demul woon kat bay dellu si man daal man man man man damaa am gàcce ban gàcce gàcce gàcce dafa xajul si man gàcce démb bi rëy dafa xajul si sa tante lay nuyu man sàcc sax bëgg naa gàcce sàcc bëgg naa gàcce leneen ak leneen mais gàcce bi ma def démb affaire jigéen yooyu waaw dama man sa sa tante nga lay nuyu Fatou man daal sama yaram daw na waaw sa tante nga lay nuyu nuyul ma ko sama yaram daw na man man amee dafa mel ne damaa am une dépression dama insérer. Ah. dama dama man dama ma baxali naa ay kii wax naa gëy mu mu baxal ma. Euh, mbay nag dafa am lu ñu doon wax nag gëwuma ko mais nag am naa ci lu ma leer. Ah. <laughs> waaw sama benn xarit nee na ma. Ah. seen waa ji gëm naa ne Youssou Ndour ku baax la. ma ne ko lu tax mu ne ma Youssou Ndour mooy dem ba jël ku génn dalal xel <laughs> jox ko émission. yow eh ci première promotion bi njëkk génn ci nga bokk. première yow sa xel bi mu dalee la nga bàyyi. <laughs> yow yow yow yaa eh, fi nga nekkoon de. jël alalu kër gi eh, jëm di ko eh, joxe du dëgg du dëgg man may wax ak yow nga ne ma du dëgg man may wax yow nga ne ma du dëgg waaw yow yow yow la de si nga xam ko ragaluma am na beneen bu feeña ban moo feeñ benn feeñu si yow yàqatu der bi yow di toppaate man ngay topp <laughs> dinaa la topp man ngay topp dégg naa la booleeg sama maam jànq ñi nekk ci kër gi yëpp <laughs> jànq yi nekk ci koñ bi jànq yi liggéey ci kër gi koñ bi yëpp labat nga leen ñii ñëpp yaa leen di ba pare lu ñu am jox la ko nga jël jox ko jeeg ji astafirlaa yow ni nga mel may bàyyi li nga mel sa yaay wax na ko sa man nga yëndu mosoo gis sa salaire sa yaay mos gis sa salaire man nga yëndu lu ñu la jox nga jox ko jigéen ñi waaw waaw baax na yaa Kiya yaa Khadija yaa Didi Dambou yow bàyyi woo kenn astafirlaa madame Ndiaye sax ci boppam eh. madame Ndiaye yaa ma ko wax yaa ma tànk yi madame Ndiaye nga bëgg yaa ma madame Ndiaye nga bëgg yaa ma madame Ndiaye nga bëgg